ñoo ngi nii ak président gis ngeen xam ngeen nit moom kenn du ko waxal lu mu waxul président ngi nii Sénégal waxi góor jigéen ñi dafa leer nee na fii kenn indiwu fi feeg mi ngi fi président waxal nee na feeg mi ngi fi yàlla di ko jox bakkan di ko jox muy jiite réew mii fii kenn du fi légaliser mbiri góor jigéen kon kay na xel yépp dal mi ngi nii daal loolu la président wax